salaamaaleykum internautes yi nuyu nañ leen euh, ziar leen euh, vidéo bi nag tey dañ koy jagleel ñaari bind sono yoo xamante ne Aliou Cissé ak ñami liggéeyandool war nañoo def le tout ba convaincre leen indi leen ñu dooleel équipe nationale bu Sénégal laata ñuy dem ca coupe du monde ba ñu war a amale fële ca euh, Qatar ñaar ñu ñaar ñu ma leen di proposé tey nag Sofiane Diop lay doon ak Boubakary Soumaré laata ñuy ñëw ci yaatal gi nag dañuy ñaan képp kuy gan ci page bi te abonné go ñoo ngi lay ñaan nga abonné vidéo bu ñu dugal rek nga bokk ca ña koy njëkk a gis ñu ñëw ci yaatal gi ak eh, ñaari eh, binationaux yi muy Sofiane Diop ak Boubakary Soumaré ñaar yu mën li ñuy def mën football te football am ci ñoom eh, yaakaar ñooñu nag Aliou ak i gaayam war nañoo def le tout ba convaincre leen andi leen ñu dooleel ci équipe nationale ñu dooleel équipe nationale bu Sénégal ndaxte ñaar ñu mën li ñuy def lañ ki koy njëkkee nag mooy Sofiane Diop Sofiane Diop nag mooy choix numéro Euh, kooku nag jàpp naa ni Aliou moom jamono yi euh, dafa war a jug ci ay mbiram ceytu ko indi mu doxal ci équipe nationale bu Sénégal euh, ndaxte moom doomu France la ak Sénégal ak Maroc te ñoom ñëpp ñu ngi ci dossier wu Soufiane Diop jamono yi moo tax Aliou Cissé waree bërëb baral ay jiigoom ngir euh, Soufiane Diop ñëw ci équipe nationale bu Sénégal euh, laataa ñuy dem euh, ca coupe du monde ba Soufiane Diop nag jour la mën li muy def 23 ans la am xale la mi ngi football ci club boobu di Monaco football am na ci moom yaakaar. milieu offensif bu mën li mu def il a des qualités techniques énormes moom Soufiane Diop jamono yi nag Aliou Cissé war a tax mu gën a war a baral ay jéegoom ak waa fédération bi. bi ndaxte mën apporter beaucoup de choses équipe nationale bu Sénégal parce que milieu offensif le boo xamante ne am qualité yu rare ci équipe nationale euh, bu Sénégal. keneen ki tamit mooy Boubakary Soumaré bu Leicester moom nag doomu France le ak euh, Sénégal euh, te football am na ci moom yaakaar milieu défensif la boo xamante ne taxaw na am na kattan techniquement dafa taxaw physiquement et puis dafa taxaw moo tax boo demee fële ca France ñu ko doon tëkkaleeg Paul Pogba moom Boubakary Soumaré nag bu ñu ñëw ci équipe nationale bu Sénégal ndaxte coéquipier bi mu àndaloon foofee ca Lille muy Arfan Gueye muy sénégalais tamit na euh, na moom mi ngi doon wax que ne Boubacar Soumaré nee na heure bu ko équipe nationale bu Sénégal wooye day ñëw ndaxte euh, fii tamit mooy euh, réew papaam je pense que ne Soumaré mën na apporter lu bari équipe nationale bu Sénégal bi jamono yi ñu toll moo tax Aliou Cissé bu bëggee indi ki nga xamante ne mooy Soumaré ci équipe nationale du jafe nañ baral jéego yi mook fédération bi ñu andi ñaari ndaw yi muy Sofiane Diop ak Boubacar Soumaré ndax ñu mën li ñu def la mbokk yi ci commentaire yi ñëw leen ngeen wax ñu seen xalaat ak seen gis-gis ci ñaari ndaw yi nga xamante ne Aliou Cissé ak ñi mu liggéeyandool war nañoo def le tout ba convaincre leen andi leen ci équipe nationale bu Sénégal ñu jàppale ñu ci coupe du monde ba kon gars yi lii la woon dina wax ba ci kanam ci suñu yeneen vidéo jaa ngeen jëf